aawusu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taalaa wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak ñun ci seen télévision bi di Touba Monde bi lëkkaloo ak rajo bi di Xassida online ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu bi Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér tey ñi ngi ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di wàccaayu bis bu màgg bi mu di 18 safar kenn ku ne xam Serigne Touba Cheikhul Khadim bis bi fi mu ko ak yéene ji nga xam ne moom la yéene mbooleem jullit ñi mu tombee ak li nga xam ne nag mooy ki nga xam ne moo di Cheikh mu Mountakha kenn du gën a gis liggéey bu am solo bi nga xam ne eh, mi ngi ko ciy liggéey saa su ne loolu di lu am solo waaye ni ngeen ko xamee murid yi nga xam ne itam ñoo nekk ci biti réew mi saa su ne ñi ngi takk seen i ñoom itam fas yéene teewee ji li nga xam ne moo di woote bu mag boobu mën nañ ne bi weeru safar bi dooree ak léegi fenn fu ne nit a nga fay jógee ngir jëm fi nga xam ne moo di Touba Mbacké tey jii ñu ngi ànd ak yéen fi nga xam ne moo di aéroport bu Malpensa nekk fi nga xam ne moo di Milano ak euh, vol yu bari nag war fee jógee tey jii si ngoon am benn vol bi nga xam ne nag ci lañ nekk ni mu di vol spécial nekk vol bi nga xam ne moo di Neos euh, ci ñaari waxtu ci ginnaaw am nañ départ li nga xam ne moo di Air Maroc am nañ départ tamit li nga xam ne moo di air bi nga xam ne moo di TAP dina fi jóge moom tamit ci kanam niki noonu air bi nga xam ne moo nekk. Euh, air Maroc comme ni leen ko waxee sànq ci fàttali ni ko noonu tab bi tamit dina fi jóge si kanam ak yeneen air yi nga xam ne ci suba ba léegi ñu ngi fi bàyyikoo mën nañ ci weeru safar bi doore ak léegi ñi ngi taxaw nag kenn ci jëwrin yi nga xam ne ñu ngi jóge fii ci eh, gox bi nga xam ne moo di Milano di sëriñ maam Thierno Sylla kenn ku ne xam itam cër bi nga xam ne moom la am ci yoon wi di kenn ci waa kër borom daaru waaye di kenn itam ci waa sëriñ kër sëriñ diwaan Sylla kon ñu bàyyee sëriñ maam Thierno moom tamit mu andi ñu li nga xam ne moo di ay kàddoom ci yoon wi nga xam ne moom lañ dëgmal ngir fas yéene dem fi nga xam ne moo di Touba Mbacké ak gis-gisam tey jii ni nga xam ne daanaka aéroport bi bu ñuy xool da nga naan euh, nit ñu ñuul ñi sax ñoo ëpp far nit ñu weex ñi ndax fu ñu xool fu ne ay départ la ni ngeen ko waxee mbooleem vol ñu ngi départ ci suba ak léegi ni ñu ko waxee am nañ fi départ Air nga xam ne moo di tab fi départ li xam ne moo di Iberia am nañ fi départ nga xam ne ñu ngi fi bàyyikoo jëm fi nga xam ne moo di euh, Sénégal ñu ànd yéen ak ci vol spécial bi nga xam ne dina fi jóge tey mu nekk Neos bi kon bismillah sëriñ Mame Thierno hakaza yakunu barakallahu fikum jazakumullahu xayral jazaa'i Cheikh Mouhamadoul Moustapha gannaaw bu nu sante yàlla buur bi subhaanahu wa taala julli ci sangab-sang yi xayrul wara njool di ko ñaanal di ñaanal ay saabaam wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi diini di ñaanal Seexuna Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul Ahmadu yàlla nu yàlla fayal Serigne Touba lu ma mas a fay ku ko liggéeyal ngeen ji fay di jiital ci sunu nuyoo bu tedd bu màgg boobu Cheikh Mouhamadoul Mountakha al xalifatul am fi taifatul muridiya afisaullahu waraaw mu yàgg fi te àggale yéeneem ak i mébétam ndax njariñal umma bi yëpp la waaye njariñal euh, euh, euh, adduna bi yëpp la kon ma Cheikh Mamadou Moustapha tey lu nu mën a wax rek mooy mbégte mbégte la nu am ci taxaw fii ci palaas bii war a jëm ca dëkk bu sell bu tedd ba di dëkkub Seexuna si Ahmadul Xadim muy al Touba al Mahrousa muy dëkk boo xamante ne bii sëriñ bi daj na lu ne maanaam door a gis pàkk bi waaye daj na lu ne itam ca dëkk ba maanaam ngir defar jullit yi defar jaami yàlla yi defar ay ruux ndax loolu moo waral bis bii nga xamante ni bii mooy 18 euh, safar euh, génn gi nga xam ne Cheikh Mamadou Moustapha moom la Serigne Touba génnoon Jolof te bindu ko wax ne xaritu xaritu yow ma sa saamina asar li xidmatil muxtaar bi sëri safar loole moo waraloon ñëpp génn nañ. ñëpp ay génn ni nga ko waxee vol yi macha allah te lii benn la ci dëkk Europe yi muy maanaam euh, Italie te fii de mooy dëkk bi nga xamante ne bii fi la la diine yahudi diine nasaraan ya fii mooy seen capital kon Seexuna Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul li ma mën a wax foofu rek Seex Mamadou Moustapha moom am mission réussir na ko yonent yu bari eh, réussir uñ seen mission ndax ñu ci bari gox bañ dëkk fa lañ doon woote waaye Serigne tubaa mën nañu wax ne réussir na am mission am lu ko waral mooy fii nga xamante ni bii la taxaw tey muy eh, Malpensa eh, di Milano kër sëriñ tubaa nekk fi ngeen bokk ci jëwrin ya ñu fay taxawal la nga xamante ne bi moom la ñuy taxawal fa njaareem di fa taxawal la nga xam ne moom lañuy taxawal ca Touba ndax kër Serigne Touba gi nga xam ne moo nekk Milan muy euh, euh, kër Seexul Xadim di sunu ambassadeur di sunu lépp di sunu rawukaay foofee la ñuy taxawal ci jumaay Serigne Touba ji ca Touba di ko taxawal ci jumaay Serigne euh, Touba ji ci njëriñam loole lañ fa taxawal muy alxuraanul karim te moom jëmm ju sell ji di ko fa taxaw muy kaamil bi nga xamante ne bi weeru koor wu tedd wi nga xam ne saa yu ñëwee dana ko joxe ànd koog jullit yi ànd koog murid di ba weeru koor wi jeex ak guddig alxames gu nekk itam danañ fa wàcc ñetti kaamil haddiyal ko Serigne Touba kon li ma wax foofu rek mooy Serigne mission moom moo réussir nun nag dañuy wax alhamdulilah bi nga xamante ne bi yàlla boole nanu ñu bokk ci ñi nga xamante ne bi bëgg nañ Serigne Touba gëm nañ Serigne tubaa yaakaar Serigne tubaa doyloo ko te itam nag lépp lu nu am rek Serigne tubaa la ñu koy delloo njukkal te delloo Serigne njukkal delloo njukkal Serigne Touba mooy ñu nekk ak njub wax naa ko barki démb ne li nu Serigne bi bëgg ci nun mooy rek ñu jub te suñu jubee lu nu bëgg danañ ko am kon Cheikh euh, Cheikh Mamadou Moustapha bis bii nga xam ne moom la ñuy dëdmal fas yéene koo ànd ak yéen te itam euh, liggéey bi nga xamante ni bi moom ngeen di yaatal ci àdduna bi ñëpp di ko gis yàlla na yàlla sama borom subhanahu wa taala fay leen ci ngi laq yi ngërëmal sëriñ Tuubaa man nag li nga xam ne moom laay soññ saay bopp di ko soññ itam suñ bokki taalibe ni ko ni ko suñ Modou euh, Thiam waxee léegi rek ni ko doon waxtaane danoo war a seet nun ci suñu bopp fi nu toll ndax waxtu wu jot ñu ngi soññee ci sëriñ Touba te sëriñ bi li muy wax wax na ko li muy bind bind na ko nun ci jariñoo lañ war a seet kon loola nun noo war a seet kenn ku nekk natt boppam màggal gii nga xam ne moom la ñu nekk nii yàlla may nu nu fekki ko ba déwénaat ñu fekkiwaat kenn ku nekk natt ci sa boppam ba xam yow lan nga yëg ci sa bopp ci sa bëgg ci sëriñ bi ci sa gën a sellal ci sa gën a jub ak ci sa gën a jëf ci lu baax ci lislaam kon loolu mooy waajtaayu màggal loolu itam mooy li nga xamante ne bii moom la ñuy dénk suñuy bopp muy ay kàddu yoo xam ne ñu ngi koy soññ bokki taalib yëpp di ko soññ bokki jullit yëpp te Cheikh Mamadou Moustapha al Karim mi nga xamante ko andi Touba waaye màggal gi daan defee mooy bu màggal masaa jot dana bind ab discours boo xamante ne dañ ko daan tasaare di ko jox seex yi nekk ci àll bi mu ciy jàllale ay mission di ci man a wax itam ndigal yi nga xam ne mooy ndigali yàlla yi mooy ndigali Serigne Touba ak liggéey bi Cheikh Mamadou Fadel bi nga xamante ne bii toog na ba ñëw moom moo njëkk a woote màggal gi Touba lan la ci jubli woon stratégie la stratégie de rassemblement maanaam euh, yoon wi ak liggéey bi nga xam ne mooy liggéey yu jumaa ji tey nekkoon ci ay circonstances yu xat loola moo taxoon maanaam ñu def stratégie boobu nañuy dajale fii ci gi buñ fi dajaloo maanaam xam liggéeyub Serigne Touba ba di gën a dajale dëkk bi di gën a suqali dëkk bi mu digle woon ne nañ nañ ci jiital alxuraan jàng xasiida buñ noppee itam ñu dem ci barab yi siyaare saa fonte mooy doxu mbokk kon nag loolu ay yiw a ngi ci nekk yoo xamante ne bi kenn xamul nu tool toll loolu recommandation la boo xam ne képp koo xam ne dem nga màggali na nga xam ne lii mooy ndigal la na nga xam ne lii mooy jariñ lii itam moom la sëriñ bi bëggee woon bu ko defee ñun ñëpp danañ bokk jariñu ñi ngi sant bu baax nag tey gërëm di am tawfeex joo xam ne ànd gi ñu ànd gi yéen ci vol bi sant nañ ko sëriñ Tuubaa ndax yàgg nañ koo bëgg te tey ji la ko yàlla dogal kon alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf xaadimu rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ maam Thierno ci kàddu am sëriñ Cheikh Mbacke Ndiaye jóge fi nga xam ne moo di eh, Touba Varese moom tamit eh, féete ci gox bi nga xam ne moo di Malpensa ñoom tamit eh, ñoo am taxawaay bu am solo ci wal bi nga xam ne tey moo fi a bàyyikoo nii jëm Touba xam naa Serigne Cheikh dañuy ñëw rek fi nga xam ne fi la Serigne Mame Thierno si la daaneele comme niñ déggee Serigne Mountakha gi di ko nettali ci ne Serigne Mountakha dafa ko mas a wax ne ko màggal balaa murid bi xam ne màggal na maanaam yëg ko ci poosam wala mu yëg ko ci yaramam kon tey boo gisee murid yi dajaloo daanaka bi weer wi teroo ba léegi kenn ku ci nekk yaa ngi xinte xintewoo naka ngay def ba maanaam dem fi nga xam ne moo di tubaa waaye ñu xam bu baax itam ñi nga xam ne mënuñoo dem itamit ñi ngi koy màggali fii ci ay gox yu fasantikoo waaye amul benn murid boo xam ne nii maanaam bisu màggala moom fas nga fas nga ko yéene yemaleet bis ba ko jiitu wala bis ba ca topp loolu nag mu doon pas-pas bu am solo boo xam ne nii xëy na yéen Touba Veres tamit xay na am na taxawaay boo xam ne nii am ngeen ko ci. asalaamaaleykum bisimilah. ñoo ngi ziar di balu àq di leen baal di ñaan yàlla mu boole ñu baal doolu ñoo dimbali barke borom Touba man la maam Cheikh Sadio Ndiaye ñu gën ko xam ci Cheikh Mati nekk ci daayira Touba Varese almuhajina bi sablillah euh, ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant Serigne Touba mi nga xam ne si moom moo waral lii tey sa question bi am na solo lool ndax man damay faral di wax ni sëñ Abdoulaye dafa ni euh, ki nga xam ne si boo àndeek moom jëriñu yaakaar naa boroom xel mu ne kook nga war a àndal ndax daf ni sëriñ Touba de ba muy liggéey kenn ku nekk ca gannaawam di wax ami nekku fa woon kon ànd gi ñu ànd ak sëñ Touba yokk ko wàññiwu ko xanaa kay suñu ndimbal la daf ñuy dimbali te loolu dafa am solo ki nga xam si boo àndeek moom dimbali ko boo àndeek moom jariñu kooku rek a jar àndal kon baam ba rek a jar àndal damay gàttal rek di wax ni sëñ Touba daf ko waxal boppam mm-hmm. jëf lu waay def sa bopp nga ko defal kon loolu ko am xel ku ne war ngaa xam ni màggal gi yitte la ndaxte loo def sa bopp nga ko defal boo ma defalee ba defal ma loo amul ma defal la jomb kon boo dee xel kooku danga ko jëfal ñi ngi sant sëñ tubaa bu baax a baax a baax di sant sëñ Ablaat mi nga xam si moom la ñuy déglu mu ñu wax ni ànd gi ñu ànd ak sëñ tubaa de dañoo ànd ak sëñ tubaa ba pare sëñ Touba wëlbatiku defal ñu ci xéewal defal ñu ci tawféex ndaxte ki nga xam si dalaa laaj sa alal laaj la sa njaboot laaj la sa doole nga jox ko mu bàyyi la ak sa deret te bu ñu laajoon dereet ji sax saa su ne ñuy xel di ko ko jox kon tawféex gi mooy deret ji nga xam si moom lañu ñu bàyyeel kon yal na yàlla fayal ñu leen yàlla doole ñoo dimbali doole ñu sutura ñu àgg si ci jàmm màggal ko at yu baree baree baree bari te suñ borom bi defal ñu tawféex ak taysir darajay Seydina Mohamed barki borom Touba sëñ Bamba daal ma wax leen ni leen li mu woote moom rek ko fi woote te keneen dootu ko fi woote kaay leen sant le ma yàlla lott naa ci sant yàlla. yaakaar naa kuy nit ku nekk de da nga wuy ji yal nañu yàlla doolee dimbali defal ñu tawfeex ak taysiir maa ngi ziar ñëpp di jël kàddu gi di ko boo wax euh, ci turu daayira Touba Varese bu juumee rek euh, ci man la waaye suñu yéene rek la ñu ngi leen sant di gërëm di ànd ak yéen tamit ñu fas yéene demee nii rek ci jàmm ak salaam barke borom Touba jërë ngeen jëfati jóge fi nga xam ne moo di Touba Varese ci taxawaay bu am solo kon mbokk yi ni ngeen ko gisee rek ni ñu leen ko waxee ci bëccëg ba léegi ñi nga xam ne moo di Malpensa fas yéene ànd ak mbokki taalibe ci bis bu màgg boobu nga xam ne sëriñ bi mi ngi ci woo mboolem jullit ñi ngir ñu santale ko ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala kon xam naa ci kanam tuuti des na fas yéene xam naa dalal ñeneen yi nga xam ne ñoom na fas yéene ànd ci vol spécial bi bu soobee yàlla karim di ci durus ay xasida ba keroog ñuy àgg fi nga xam ne moo di Sénégal di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu may ñu fekkee ñun ñëpp jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon sànq ba nga xam ne moo di Serigne ko bu baax ràññee ko bu baax mu bokk ci jëwrin yi nga xam ne eh, doon nañ jiite lii di vol spécial yi nga xam ne moo fi daan am daan jiite li nga xam ne moo di wàllum njàngum alxuraanul karim rek wàllu durus xaside yi ak mboolem taxawaay bu am solo boo xam ne rek daa ngeen ko gis ci vol spécial yi nga xam ne dañ daan ñëw ci màggal gi tey ji nag mu fas yéene ànd ak ñun jëm fi nga xam ne moo di Touba Al Mahrousa kon Serigne Abdou li ñu def mooy bàyyi la nga mokki mbokki téléspectateurs yi andi itam li nga xam ne moo di sa euh, gis-gis ci liggéey bi ak itam euh, ni nga xam ne noonu ngeen daan liggéeye saa su ne ci vol spécial bi boobaak léegi mu mel ne ko ak yokkute am na ci ndax léegi du benn du ñaar ay ay voli vol la te gis nañ ne jamono yooyu xëy na benn vol rek moom ngeen daan organiser waaye li ñuy wax rek euh, Serigne bi moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek loolu moo waral tey mu nekk ay ay ay ay vol yu bari murid di di di bàyyi ko fu ne e, ni ko sëñ maam Thierno si la waxee sànq ni ñu nekkee fii ci e, Milan noonu la am ñu nekk ci biir réew mi ci yeneen aéroport yu nekk ci réew mi waaye noonu la am tamit ñu nekk ci dënd Europe bi am ñu nekk Amérique am ñu nekk Asie am ñu nekk Afrique te ñooñu ñëpp tamit chaque jour ñu ngi xëy di jël ay vol di mobiliser wu jëm fi nga xam ne moo di bis bu màgg bu sell boobu nga xam ne moo di 18 safar kon bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jur mbokki taalibe bi ñoo ngi leen di siyaare baax a baax a baax di rafetlu bu baax it laaj bi nga laaj laaj bi nag tontu bi doon naa yomb lool muy ak yokkute rek maanaam ah, kàddu gi nga mujj wax léegi rek mooy lépp mooy sëriñ bi amul tànk ginnaaw léppam tànk kanam la. ndax wal bii nga xam ne mooy wal spécial bañ ko dalee def ak léegi mën naa ne ñaar fukki at ak naa nga mat na ko bu matu fanweer at ndax 95 ak 94 lañ ko njëkk a organisé ci njiitul sëriñ ah, Amsatou Diop bëgg Thierno ak euh, sëriñ euh, Ibrahima Thiam Mouride ak Baye Cheikh Diop ak Moustapha Mbaye Paté ak jëwriñ ko àndaloon ñëpp wax dëgg yàlla euh, ñu ñaanal sëriñ maanaam Amsatou Diop bëgg Thierno yàlla yok ay xéewal ak leeram jàmbaar la lool aéroport bii di keroog bu fi njëkkee yëkkati baatu laa ilaha illallah ñëpp dañ jóg taxaw ne lii lu mu doon

kon sëriñ bi moom mel na ne nun mënatuñ koo fay nun daal na ko sëñ bi daal di waxee yaakaar naa bu doon dagg suñu cër ju ko joxit mën noo fay sëriñ bi ndax tey buñ toogee ci aéroport bii xong noppi bàyyi ñuy maanaam sol suñu mbubb yu rëy jàng suñu xasida di maanaam di naan suñu alxuraan yor suñu cours yor suñu doll di jàng lépp sëriñ Touba la sëriñ Touba képp laa gis ko dajeeg sëriñ bi maanaam dajeeg nasaraan bii te maanaam ne wékk wékku sa ngëm comme ni ko jàngat yi waxee kon nag nga xam ne daal maanaam ci gàttal moo am moo di ak yokkute na ci liñ fas amale ci kaw bañ moo lëggéey woon nun añ rek lañ ci féete woo kon nag nañ ko daan ba mu doy jàng xaside ba mu doy bu ñu wàccee yëkkati si kër baat laa ilaha illallah maanaam aéroport ba teer ñu naan suñuy café jàng suñuy xaside sëriñ bi ñaan ñu dem incha allah rabbi ko fas yéene amale tey kon nag ñi ngi sant gërëm baax a baax a baax xam naa ne kii bi bett moo tax waaye moom daal wax dëgg yàlla ak yokkute am na ci bu wér a wér a wér sant nañ bu baax tey sant Sëriñ Tuubaa bu wér wér tey ñaan bokki teel bi noonu gën di déggoo ba wala yi mën di gën di bari mbooloo mi gën di bari da mooy li wér te wér noo ngi leen baax a baax baax jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Abdou Mboup ci kàddu yu am solo yooyu kon mu mel ne xam naa laaj bi ma ciy dolli rek mooy euh, quatre-vingt-quinze ba léegi diiran ñaar fukki ak nangam noo gisee maanaam nooy gi nga xam ne dox na si diggante euh, nasaraan si ak ak ak ak ak murid yi ci jëfandikoo guñ jëfandikoo njàngaleem sëriñ bi ba daanaka fi mu ne nii da ngay gis ne sax ñoom ñoo ñu yitteewoo far dangay gis nooy gi ñu nooy ba daanaka fi ne nii da nga naan aéroport bi tey boo xoolee mel na ne maanaam dafa mel ne ñun ñoo fi ñoo leen fi ëpp sañ-sañ far euh, da ba ci maanaam wàllum bagage yeeg yu ci yu lu mu ci mën di doon rek fi ne lu mën di ñëw rek dafa mel ne maanaam doolay màggal gi moo koy far moo koy far buubaale yóbbu ba ñoom lu ci bari sax taluñu ko fi mu ne wax nga dëgg de waaw loolu moom njàngat gi mooy lépp sëriñ bi la.

ku nekk nekk fi lii nun dong lañ fi am sañ-sañ man koo de nun njëbat Serigne Touba gi loolu nag Serigne Touba moonu ko lëggéeyal nun añ rek moo nu ci war kon nu xam ne nun Serigne Touba daal li mu lëggéeyal mën nu ko fay moom nag maa war suñu dellu gi tey ànd ak jàmm ak ak wërsëg woon gàññi nag tey lu waaye mën a sant rek lan def nag sant dong def noo gën sant nag tey réew moom nooy ne nepp moom fii nii moom xawma ko jubut wala nga maanaam doonoo am morit wala nga ñàkk a nga ñàkk a dox ci njàngaleb Serigne Touba waaye boo ci dee boo ci dee dox moom amul guddi amul bëccëg waxtu wala neex mën ngaa dox buñ ne na xam ne euh, ab Sénégal nga waaye rawati am murit nga rek yow moom maanaam sa lépp jàmm la boo amee kay bu amul kay yaa ngi ci jàmm ak salaam loolu nag Serigne Touba nu ko defal kon nag jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Abdou ci kàddu yu am solo yooyu kon xam naa ne ñuy def rek mooy bàyyi leen ak ki nga xam ne moo di Serigne Modou Mbaye Thiam mu fas yéene def ab doxantu ci fi nga xam ne moo di biir aéroport bi am ay images yoo xam ne def na ko jàllale pour wan ni nga xam ne noonu la murid di taxawee takku ñoom ñëpp fas yéene dëgmal woote bu mag boobu nga xam ne moom la ñu fas yéene waajal 18 safar incha allah jërëjëf Cheikh Abdou. asalaamaaleykum wa rahmatulah. kon sëñ Modou Mbaye Thiam ñoo ngi delluwaat ci liggéey bi rek incha allah rabbi ni ngeen ko doon doxalee booba léegi ngir waajal bisub Serigne Touba bi nu umul lu du mooy mooy 18 safar tey ji nag ñoo ngi ba léegi aéroport Milan muy Malpensa ngir fa yéene dem euh, ci euh, wuy ji woote Serigne Touba be yàlla nag da cee defaat taw fii it maanaam ñu àndaat ak Serigne sëtu Serigne Massamba Diop Sam muy Baye Serigne Diop bàyyi sëriñ Diop nag kenn ku nekk xam ne ko ndax maanaam sëriñ sëriñ Massamba Diop Sama te ah, ko bëgg a laajal mooy nu mu gisee liggéey sëriñ bi ak nii nga xam ne réew mi nooyee na ni ak maanaam woote sëriñ bi nga xam ne tey nangami wal danañ dem ndax wal bii nii wal spécial la lépp di ay murit ñuy jàng xasida jàng alxuraan yor suñu suñu ko di salaatu àla nabi ngir wuy ji woote sëriñ Tuubaa bi waaye am na beneen wal bu bëgg a ñëwaat dimanche la ah, ah, 11 nag maanaam noo ngi koy eh, eh, da jox suñu micro maanaam mu wax nu nu mu gisee liggéey sëriñ bi ak yokkute gi ci am bu a baax ak nooy gi na ko kon sëriñ bi ñoo ngi jéglu baax tey sàkku ci yow ay kàddu rek ngir barkeeloo ko ci liggéey bi auzubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa salaam ala rasulullah wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama na fi yàgg nu yàgg feek moom bis bii de day bis boo xamante ni nun ci suñ jëmm war na noo ëpp rek santale Serigne Touba yàlla waaw nun ci suñ jëmm war na noo ëppale sëriñ Touba santale ko yàlla ndax am na der bu ñuul bu dutoon ak tey jii sëriñ Touba ba tey suñ suñ mbuum gaa nga ci loxoy jaam ya kon war na noo santal Serigne Touba bu baax bis bi nag day bisub jëf jël ndax ginnaaw ña ca barsàq sax bu bis bi dellusiwaatee dañuy xam ne bis ba dellusiwaat na te Serigne Touba lépp li ko suñu borom defaloon ci bisam boobee bu bis bi dellusiwaatee tey jii da koy kër laataal kon nag taalib yi nga xam ne yaakaar na lu dul Serigne Touba ñëpp waaj ngir jëm ci Serigne Touba di ko santale ngir yàlla ci bis boobee ndax nee na la tàmbalee ci ginaar ba ci gileem lépp lu ci waay man maanaam na nga ko santale yàlla jàng alxuraan def salaatu ala nabi ak si kër si boole koog nag ak loo man rek ci def ko. man mii di wax ak yow maa ngi ak joo xam ne ban tàmbalee ba fi mu toll juróom-ñaar fukki xale ak ñett ña nga fa bis bu yàlla saako nu jàng ñetti kaamil def ko addi Serigne ba keroog nag bisub safar ba di jeex. am naa doom ju nekk Gambie maanaam uh, mu fàtteel bi sëriñ jàng na ci fanweer ñu koy wax Serigne Bara Diop lépp nag ñu def ko àddee Serigne Touba sëñ Modou mbay seen rajo bii de ñoo ngi ñaan ci Serigne Touba ak nag Cheikh Massamba min sañ a ñaane mu gën koo dolli tawféex ak xiiwal ndax rajo ba loo xam ne de bés bu yàlla sàkk wallaahi wal asim su ma nekkul ci waaroo maa ngi koy yàlla nag ak jëmi Serigne Touba ak taalibe gi ak wax ji nga xamante ne nag am na solo ak Serigne Moustapha Mbaye Sam mi nga xamante ne nag maanaam moom macha allah macha allah fa mu nekk ci Touba moog sama mag bu ñuy wax sëñ Basirou Diop jumaay sëñ Basirou Diop ak kër sëñ sëñ Moustapha Mbaye Sam ñoo dend Modou Mbaye technicien moom maanaam Modou Mbaye Thiam moom xàmmi naa ko bu baax te gisaguma ko woon kon nag yàlla nañ yàlla jàppale lépp loo xamante ni noon ngi ko ciy seenu ci xiwél yàlla nañ Serigne Touba defal lu ko gën a kawe suñ jort yàlla nañ Serigne def ñu teewe ko ay déwéni déwéni déwéni déwén te ñu ñëw gën a neex sëñ Mountakha Mbacké nag dañ lañu fii suñu borom andil kenn ku nekk da jaar na fi macha allah kenn ku nekk bay nga sawaar ba mu mat waaye borom jàmm ji ak mbég mi yal na yàlla guddal fan wi barkeel liggéey bi te lépp lu mu tàmbali ànd ko taalibe ci barke Seexul Xadim man de damaa mëniwul wax waaye sama xol sedd na bég na salaatu wa salaam ala rasulullah jërëjëf sëñ Modou Mbaye. jërëjëf jërëjëf tubaarkalla jërëjëf macha allah. Cheikh Bamba dem na Kombo ba ñëw dem seeti gannaar nun leen ko sargale teer na wàcc gannaar Cheikh Bamba. dem na Congo ba ñëw dem seeti gannaar nan ko sargali teer na gannaar ku xam te xàmme am xel léegi nag ni waa Kajoor Cheikh amoon tey réewi gannaar Cheikh day dundal diine wan leen yoonu yàlla bu baax buur yàlla ko may ko ay may fa gannaar way gaay yi kaa waxtaan tuuti ci mbiri Cheikh kawteef la cay jile waay jar fal na gannaar men Samba Jaara nee na ji xam yàlla moo baax moo fi gën gile waay moo gën moo amun te soo seeti gannaar te samay wax subaak ngoon waaju dal bi leen réew ba Cheikh Bamba seeti suñu dem sañ ci gànnaar kon naar yey nañu njànde booba nag la ma wax naar yaa fi gën ndaxte Seex Bamba féete gànnaar naar yaa ni gànnaar ga maalum xatta jot kulóor ya ne wana gonga ñoora faw xa gànnaar olof yi ne déete waay Kajoor a gën wi le réew Seex ma fa feeñ feeñu fa gànnaar amul fa ñooro amul feneen gi xeet nit ku ñuul dem seeti gànnaar gisul ku mel naka moom mu sex la foo waral te layla tey layla olof day sangu gànnaar sëñ Bamba kii moo yilif nit ku ñuul ak nit ku weex bi le tan sëñ Bamba amul fa ñooro amul fa gànnaar ñu gaaw te boole koog xamadeek wolof akum ndof gu mag bay feete gànnaar ñu xëy raw suñu reen daj ko gaaw te wolof mooy dof sëñ Bamba bët bu ko gis bu doon fa gànnaar ñu ñoom ñoom dëggal jiitu kii ba daa ko siyaare ngir ga barkeem nga day baawaan fa gànnaar te man laaj ku mel ni maama wax la ma xam sëñ Bamba mooy fi sax tey sax fa gànnaar bu ma feeñal ku mel ni moom ma ko laaj sëñ Bamba amul fii amul fa gànnaar ñu gaaw tëb nag akub rëy boole koog xamadeeg wolof akub ndof gu mag bañ féete gànnaar ca yàlla sëñ Bamba jiitu na kii sut na foore kii jeexal na teere yilif na koo xam ne mooy ab cheikh fa gànnaar addiyee mam cheikh rayam fall addiyee borom daaru muxti bisimilah noonu lay léegi ba léegi sëñ Mourou Mbaye mi nga xam ne moo yor rajo Touba Monde bi Milan xëy na ku ko doon dégg te xamoo ko it nga xam ne kon Mourou Mbaye Thiam rajo Touba Monde mi ngi nii tey jii ànd ak ñun ci wàllu spécial màggal Touba gi kon nag tey jii ñoo ngi aéroport Malpensa muy le 9 septembre 2022 incha allah rabi ñoo ngi wéy léegi ba léegi kon ñu ñëw ci sëriñ Jaaja Njaay mi nga xam ne moom jëwriñ la ci liggéey borom Daaru Mooti fii ci Touba Rimini ñu daje moom fii ci Touba Mina mu fas yéene wujji woote sëriñ Touba yi kon sëñ euh, sëñ Baye Jaaja Njaay yow naka nga gisee woote bi nga xam ne sëriñ Touba woote na ko ñun ñëpp àndoo di ko sant léegi yàlla mu mel ne benn wal lañ daan am wal boobu moo daan dem saa su ne lu toll ci ñaar fukki at ak nangam xam naa ko ndax sëriñ am satu Jóob bëgg Ceerno moo ko daan jiit ak Baye Mor Thiam moom mi nga xam ne naa daan ànd ak ñoom ci liggéey boobu wala boobu mm, euh, euh, la waaye yokkuteeg a a am na benn bu ñëwaat dimanche incha allah mooy wala spécial ba tey bu bu mel ni bii waaye nag li nga li nga ci laajee mooy yokkute gi nga xam sëriñ bi li maanaam ay mbiram yokku na ko ak it maanaam ni ko doon laajee léeg-léeg noo gi xam ne toog ci aéroport bi tey di di sant Sëriñ Tuubaa waaw kon nag sëñ Jaaji bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulahi ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu mbooloo mépp di leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax a baax a baax di ñaan yàlla mu àggaleel ñu di ñaan yàlla mu yóbbu ñu ci jàmm te képp koo xam ne bëgg ngaa ñëw sun boroom indi la ci barke borom Touba. ah euh, sëñ Abdou li nga laaj lu am solo la ndax wal spécial bi nga wax euh, dem na waaye dafa mel ni ren bis bu ne wal spécial la ndax man bi ma tàbbee ci aéroport bi damaa bëgg ndax murit yi ma gis euh, ci yoon wi mu mel ni daanaka ñun ñëpp dañoo joxante woon rendez bu fii loolu moo njëkk a bégloo ndax lii séentuwuma ko woon ku ci ne bi ngay dagg billet dangaa dem dagg billet sa ab ruq ñëw ñu jox la bis nga ñëw bi ñu ñëwee maanaam mel ni eh, murit yëpp ñoo fi daje surtout nag waa ahlu xasida waa ahlu xasida yi daanaka genn waa léegi gépp waa ahlu xasida lañ kon eh, loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax waaye Serigne Touba moom moo amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am nii mu mel tey ni lay mel suba ni lay mel ginnaaw suba aéroport boo dem ci réew mi nii lay mel ndax Serigne Touba woote murit yi dañ koy wuy ji dafa am benn mbokk bu ko waxoon ne buñ xasee woote màggal ak Touba moom lépp lu waay waxaat lu dul màggal gi da ngay soof màggal gi képp mooy actualité kon yal nañu ci yàlla yóbbu te weesale ñu ko te ñaan yi ci ñaan yàlla nangu ko ku bëgg a ñëw yàlla indile koo xam ne su mboroom natt na la ba mënoo dem Touba war koo def fii yeneen na yàlla nangul la sa ñaan nga àggale ko ci jàmm ci barkeb borom Touba barkeb xasida yi ñu ngi siyaare bu baax daal bég bég lool bég lool mbégte moo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yow sëñ Mbay jërëjëf. asalaamaaleykum mbokku taalibe maa ngi leen di ziar yéen ñëpp seen tur ak seen sant di wax sëñ taxaa yàlla na fi yàgg lool te wér yàlla na fi yàgg te wér jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba ñoo ngi sant nag di dellu ko tedd ki sant bu wér ndax fekkewaat ko rek ak cant la waaw lii ñu jëm nag yàlla nañ si yàlla yóbbu si jàmm delloo suñu si jàmm. te yàlla mayal ñu si ndam si barke Cheikh Al Khadim mu ñu yaakaar barke Sëñ Fàllu mu ñu yaakaar waaw waaye Italie nag moom sa kaw sa kanam rek waaw sa kaw sa kanam rek jëf jël rek lu ñu wax kon nag murid yëpp takk nañu ñoo ngi nii Ila Touba rek la ñu wax barke borom Touba Ila Touba rek lu ñu wax waxuñu dara ilaa Touba la ñu wax tey waaw kii lañ ko jaay tey yàlla nañu yegg si jàmm te dellu si jàmm barke borom Touba jërë ngeen jëf. لا إله إلا لا لا إله إلا لا إلا لا لا إله لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إلا لا لا إله ci ban ba bayu falilo ñun kii nu am kenn amu ko Cheikh Bamba mi yaa ko wane ba na kenn du la fàtte lu fi yëngu ñu gis la ci maam Cheikh roy la ñu war ci Bamba ji maam Cheikh Ibra wàcc na Serigne Fallou Mbacké fàttewu la maam Cheikh Ibra wàcc na Serigne Fallou Mbacké fàttewu la xool na si jumaa Bamba ji jël sab sóoróor tuddee la ko yàlla nañu la buur yàlla fayal ci yoonu leer wi nga ñu xàllal fu ñu toll faal di la njukkal ci bamba ji ngir jar nga ko réew maa ngi soow aka wax naan Cheikh Bamba mi réew maa ngi soow aka wax naan Bamba réer nañu ndax moom day melul ni ki waa réew mi ba gànnaar réew naa ngi soow aka wax naan Cheikh Bamba réer nañu ndax matal xabiro li wal kabiro ma la yaboro min al hayy matal xabiro

ملمي على من الدهاء مد المعافى هم يسافى وقد سافى لبعناء دام درابي حين ترابي بلا درابي wala nabi yalo sogore hila sogore hala sogore zarbe zanaye hila dagiye lajir zakiye babi rukiye yalo nidaye ويسر به هدى هداية خير العباد سبق بادي من المبادئ لزد داي لك دور منك المور لك زور يوم الأبد والغداء لخير داي لخير داي من كاسباي لك قلوبي من كسروبي مع الوروبي يا صلوائي لك قلوبي تسولي من بعد سيري بخير مالي لشن علي إلى السلام وفد الكلام بلا ملام ولا إله من غساني زبد لاي لغل بداني قول رداني بلا جدال سوي رواي هلا وربي خزانه بي لو

سرائي هدى المريد نفى المريد نعم الوريد ينمي سرائي وجد زوري لمود سيري بخير مالي على العلاقي وجعل سيري لموت سيري من غير ما هلال sa liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko ci avion bi. sëriñ bi nee na nañ doon nañ ñaa maa ngi déglu ñun ñëpp liggéey bi ñu sëriñ Touba ji. kaw leeral ko maanaam ñu ko te liñ ko def itam lim yi nga xam ne moom lañ joxe. nee na niñ bëri lim yi ñu joxe woon ni ñu sëriñ Touba bëggee dimbalee ni ñu sëriñ Touba bëggee dimbalee loolu moo tax ñuy tànn xasida yooyu moo tax ñu tànn xasida yooyu dawal ko ci biir jaww ji dawal ko ci biir jaww ji boole ko salaatu ala nabi boole ko salaatu ala nabi ak istixfaar istixfaar loolu yi nag loolu yi nag bëgg bokk ak waa adduna bi yëpp nee na dañ bëgg a ah bëgg a bokk adduna bi yëpp ndax sëriñ Touba ci boppam dafa yaatal dafa wax ne irham jami al wara sëriñ Touba dafa yaatal moo wax irham kon bis bii nga xamante ni bii doon na bis bi nga xam ne. ñun ñëpp maanaam moom moo tax ñu ñëw. ñun ñëpp moo tax ñu bàyyi lan doon def lépp. sunu lépp bàyyi sunu liggéey bàyyi sunuy gën bàyyi sunu lépp. tam jaar ko nag. tam jaar ko sëkk. xarajtu sabti yow ma saamina asar. waaw li xidmatil muxtaar fii sahri safar la wax. waaw génn googu nga xam ne moom la génnoon bisu gaabu génn gam gën a génn ñëppay génn fi mu nii wér na ñëppay génn seen kër génn seen kër loolu yi nga xamante bi moom la bëgg nag sababu xaybati an mu wax waaw arada an ana law an a lil xaw mi wa nakkoon a xaadiman fii daw bi xettali xeetu sayduna maami sallallahu alayhi moo tax bi ñu yëggee ci avion bi ñu jël limbu xasida boo xamante ne xasida gu ci nekk la ci sëriñ bi wax doy na sëkk wér na ndax saane ilaay bil munaajiyaati wa abadan ax naa yëmi anhaati dalla haliyal ulama wal awliya mun lay salli xóotul awliya xasidati faaxat xas ay del kiraam waaw loolu la sëriñ bi wax waaye wax na ne eh, saana ilaahi day taxaw na eh, bépp xare boo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mas na koo xari xasida googu taxaw na ko jàng nañ ci limu ñaar fukk ak juróom-ñett bëgg lépp loo xamante ne bi fay nañu ko cawe ñu boole ko ñu bokk ko waa duna bi yëpp rabbi bi maa yasroon asana xad faja xasiida go nga xam ne ñaari tur yàlla yi arrahmaanu rahima la ko tëgge moom itam jàng nañ ko ñaar fukki yoon ak juróom-ñett suñ noppee si Abdou doon ko lim sax suratul ixlaas def naa ko ci sama kërus mille cent onze lépp ñu wàddi yàll ko Sëriñ Tuubaa njukkale ko ko ci bis bi santale ko yàlla ndax xiiwal yi gën a bari gën a saawaat yàlla nañ ko bokk ak waa duna bi rawatina waa Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi nag ñu yëkkati xasida Serigne Touba tax Serigne Touba dafa ne kiraamatu xattu yaddi sama kiraama yàlla na ma ko defal ci sama mbindum loxo kon nag xasida yi ci la lépp ne yàlla na ngeen yàlla am ngërëmul xasida yi yàlla na ngeen daje ngërëmul Serigne Touba ñu yàgg a ñëw fekk leen fi ànd ak yéen am ay xéewal ba toog fii di ko ànd ak yéen ci daraje Serigne Touba loolu lañ leen fasal loolu la ñuy sàkku ngeen ñaanal na ko di ñaan yàlla yàlla bu doon sun mujj gi màggal yàlla nañ ko def ay ati ati ati ati taat mun jot muy gën a neex ba àjjana rek ñu ko Cheikh Mamadou Mountakha waxe ñun ñëpp ñuy maase nag di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha ndax njëriñal adduna adduna bi lépp la sagub jullit yi la waaye sagub murid yi la kon loolu itam ñu ngi koy sàkk bu baax di ko ci siyaare di siyaare mboolem waa euh, jabatu Seexuna Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ak kilifa yi diine yëpp ak tariixa yëpp islaam bi yëpp ak umma bi yëpp ñu ngi leen di siyaare di leen màggal di leen yéene ci yiw wi nga xam ne Serigne Touba moom la demoon wuti andi ci tukkeem bu rëy bi añ bu mat sa euh, njëriñ lu bari kon nag yàlla na ko yàlla boole sama xol daal fees na mënu cee wax loo xamante ni bi dafa bari seen mbokkum taalibe dong la nag moo xamante ni bi dafa bokk ak liggéey bi kon nu xam ne borom Tuubaa moom li wéttee woon mooy ñemewul bon raa mën a fay noonu ñu ñëpp suñu bopp xam ne a tuuti rek isnu abraar jàng nañ ci juróom léegi wakaan xaqan jàng nañ ci limbu arafi tuuba muy ñaar fukk juróom ñetti kaw jaww ji wala xada karan naa jàng nañ ci fukk jës bu jàng nañ ci fukk mawaahibu limu arafi tuuba muy ñaar fukk juróom ñetti jaalibatu jàng nañ ci juróom mafaadu bisri jàng nañ ci juróom jaawatu jàng nañ ci limu arafi tuuba muy ñaar fukk ak juróom ñett sindiidi jàng nañ ci limu arafi tuuba muy ñaar fukk ak juróom ñett matlabul fawsayni noonu lañ ko doxale taw tofatu mu darañ noon lañ ko doxale waa nag ik fi nii jàng nañ ko Taysiir jàng saana ilaahi bi leen doon wax maanaam jàng nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñett waaye nag moom ci boppam làmmiñu boppam moom li nga xam ne jàng na ci xulu mille cent onze yoo xam ne ci kaw jëy la ko jàng def addi nu tiim géej gi tiim jaww mu koy jàng di sor borom daaru muuti ma nga xam ne moo demoon ndar yëf yi daal bàyyi moon yemale ko fii ndax man lim bal ma du dara du tax mu raf ay bëtam. weer na amit. weetaay du wàññi ab ngamam. maam Thierno fa ci genn jëmmala. dara du yóbbu aw fitam. maam Thierno ndaamal daaru dara du tax mu raf ay bëtam. weetaay du wàññi ab ngamam. tey borom daaru genn jëmmala. masula rak masula tiit du jaaxle. ma seefu kalaana bor maam Cerno Faati moo baax lépp ma seefu ko iñub daram du jiñ loo masula waatoo mbaa mu dox di ñoñ loo ñeme ñeme ñeme ba mel ni ab gar dafa ragal yàlla ba mel ni bakar te wexe wex xat mam Cerno Ndamal Daaru ba mel ni xadar dafa lawet ba mel ni am xar tabe tabe tabe ba mel ni marmar te aaya aaya aay ba mel ni parpar addiye mam Cerno Ndamal Daaru jërëjëf borom Daaru amin jërëjëf